حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokki julit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ragal yàlla mooy dénkaane suñu borom tabaraka wa taala ca ñu jëkk ña ak ñu mujj ñi ñu xam dañoo am bu mag ci lislaam bu yëkkatiku ci biir mbooloom julit ñi wàccuwaay boobu lislaam moo ko jox jàkka teg ca yool bu màgg boo xam ne suñu boroom jagleel na ko ñiy dundal jàkka ñii toppatoo jàkka bokk na ci liy tegtale wàccuwaay boobu jàkka am ci lislaam jàkka néegub suñu boroom la tabaraka wa taala suñu boroom lépp moo ko moom walillaahi mulku samaawaati wal ard waaye jàkk nag la jël jagleel ko boppam loolu nekk kon luy tegtale sell goo xam ne jàkka sell na ko sori goo xam ne itam sori na ko ay jubluwaayi àdduna ba tax ne képp koo xam ne yaa ngi dem ci jàkka war am yéene ju sell la ngay jëf itam war naa sell suñu borom tabaaraka wa taala rekk tax nga bañ caa boole dara suñ borom ne wa anna al masajida lillah jàkka yi yàllaa ko moom fala tad'u ma allahi ahada bu leen woo wala ngeen di ñaan di booleeg suñu borom tabaraka wa taala keneen suñu borom dellu melal jàkka ne ay néeg la yoo xam ne yàlla digle ñu yëkkati ko kon jàkka ci ndigalu suñu borom tabaraka wa taala lañ koy taxawal mo joxe itam lañ fa war def mu ne wa fiha ismu aw turam rek lañ fa war a tudd moo wax itam ñey taxawee jàkka nu ñuy mel mu ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an sikrillah ay gaay la ñuy doon yo xam ne soxlawoo seen mbiri àdduna ci jaay ak jënd ak liggéey du dox seen digganteeg jaamu yàlla du dox seen digganteeg tudd yàlla du dox seen joxe azaka ndax lan dañoo ragal dañoo bàyyi xel bis boo xam ne mi ngi ci seen kanam bis boo xam ne nag suñu borom tabaraka wa taala dana leen fay ñooñu doon taxawe jàkka la gën a rafet ci lañ doon jëf te dana leen dolli ci ak mbaaxam ndax suñu borom muy wërsëgal ko sor te du ko regle bokk na ci liy tegtale itam wàccuwaayu jàkka suñu borom tabaraka wa taala seedeel na ngëm yàlla ñi nga xam ne ñooy taxawal jàkka ci di ko sos di ko tabax waaye di ko dundal di yittewoo lépp loo xam ne mbiri jàkka ja la di fa def itam lépp loo xam ne lu ñu fay aajo aajowoo la suñu boroom mi ngi wax ci alquranul karim ne ñiy dundal jàkka mooy koo xam ne gëm na yàlla gëm na bis bu mujj ba di taxawal julli di joxe azaka te ragalul ku dul yàlla mu ne ñooñee day suñu boroom tabaraka wa taala dana leen boole ci ñi nga xam ne ñoo gindiku ñoo tegu ci ak njub jële nañ ci Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu mu ne dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ku tabax jàkka joo xam ne jëmmi suñu borom tabaraka wa taala rek la cay sàkku ngërëmam la cay sàkku suñu borom dana ko tabaxal am néeg ca biir aljanna ñetteel ba ci liy tegtalee wàccuwaayu jàkka kuy ci di ca dem ak ci waxtu julli wu dafa ci far ay di yëkkati ay daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ndax du ma leen tegtal loo xam ne yàlla da ciy far ay bakkaar da ciy far ay ñaawteef waaye da ciy yëkkati ay daraja ñu ne ko ah kay mu ne mooy ngeen di jàpp njàpp mu mat sëkk doonte sax njàpp ma day fekk jamono booba mu xaw a metti mu ndox ma sedd wala lu na deme ak nag di bari ay jéego jëm ca jàkka ya ak nag di néggandiku julli gannaaw bu julli jàllee ngay néggandiku julli boo toogul ca jàkka ji di ko néggandiku it foo mën a nekk yaa ngi bàyyi xel julli googu mool fa bàyyi foo déggaate ak nodd rek nga bàyyi la nga nekkoon daal di dellu ca jàkka ji mu ne fasalikumu ribaat loolu mooy ribaat ribaat mooy kii garde ci lislaam ñu teg ko fi bunt mu di ko garde bañ ku ko róo nee na ki taxoo noonu jàkka fu mu jógee ci jàkka yitteem jëpp ak xelam mépp mu ngi bàyyiwaat xel geneen julli ñëwaat ba mu delluwaat moom la borom naan fa ida faraxta fansab waaye wa ila rabbika faraxat soo noppeetee ci julli demal nga sonn nga fàggulu lew waaye nag sa xemimtif békk bépp nag na nekk sa borom tabaraka wa taala yonente ya bi alayhi salaatu wasalaam ne koo xam ne yaa di dem ci jàkka wala ngay gott di ca dem kooku suñu borom tabaraka wa taala waajalal na ko ak nganaleem gam koy terale ca biir aljanna saa yu xëyee wala mu gont rek teraanga jooja ma nga fa di ko xaar yonente ya bi alayhi salaatu wasalaam tudd na ci biir juróom ñaar ñi nga ne ñoom la suñu borom di keral ci aras bu ëllëgee keroog nga xamne ker googu dong mo fay ker tudd ci ca waajoo xam xolam bépp mi ngi aju ci jàkka rajulun qalbuhu muallaqun fil masjid bu nekké fa muy liggéeyee fu mu mën a nekk xol bi mom mi ngi ci jàkka ji ñentel ba ci yi nga xamne day tektalé waccu wayu jàkka jàkka yi moy barab yi suñu borom tabaraka taala gëna bëgg ci kaw suuf yonente bi alayhi salatu wasalaam neena ahabbul biladi ilallahi masajiduha li suñu borom tabaraka wa taala gën a bëgg ci barab yi nee na mooy jàkka yi bokk na ci liy tegtale itam wàccuwaayu jàkka ci lislaam mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee madina gàddaaye makka nga xam amagu fi kër amagu fa dara pàkk ba mu jënd la mu fa tabax mooy jàkka dëkk waaye moom da ko bokk rek ca ja ja wutal barab moom la njëkk a yittewoo def ko muy barab boo xam ne fa la wooteeb lislaam bi di jóge di tasaaroo ci penku ak ci sow mu def jàkka jooju itam muy néeg bi nga xam ne jullit ñépp a ko bokk muy seen jàngukaay bi mag bi nga xam ne fa la ñuy jànge waaye muy seen fatuwaay bi nga xam ne fa la ñuy fatu ci jamono yi mbégte ak jamono yi lor saa mbir masaa xew day wax bilaal ne ko na woote bilal ne assalaatu jaamia loolu su ko waxee rek ñëpp daal di def daje ci jàkka ja ngir mu waxtaanee ak ñoom mbir ma nga xam ne moo xew kon foofu mooy barab bi nga xam ne fi lañ daan jaabo yàlla waaye li aju ci seen doxalii ni adduna itam fa lañ ko daan daje fa ko daan waxtaane mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ko fay dem war nga koo sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa bu diglee jaamu yàlla da caa digle n ak rafetal wa man yuslim wajhahu ila llahi wa huwa muhsinun mooy sart bi rafetal googu nag mooy jàmm yàlla gu nekk teggin ya mu àndal nga sàmmante ko la ci jiitu mooy booy dem ci jàkka gannaaw barabu mbooloo la barabu daje la na nga yittewoo sag col ci na set waaye na nga yittewoo itam laal xet goo xam ne gu neex la waaye na nga yittewoo itam soccu walla lu ko mën a wóotu ci luy setal gémmiñ suñu boroom ne yéen doomu aadama yi na ngeen jël seen waajtaay ci jëpp jàkka bépp barab bu ngeen di taxaw di jaamu yàlla bul ko sobental lu mu la fekk rek nga daal di jógee noona waaye na nga wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir waajtaay woowu mu ne koo xam ne day danga lekk lu mel ne soble wala laaj te mënoo koo setal ci sa gimiñ xet ga des fa mu ne kooku day bul jege sunu jàkk kon la neen lu dul moom taxul ñuy wax kon dal képp koo xam ne yor nga loo xam ne moo xam xet la moo xam melokaan la boo xam ne mën naa lool ña ngay dajeel ca jàkk ja kooku kon waroo dem ca jàkka ja te jàkka ja itam mënoo ca ñàkk dem kon nag boobaa nit ki daf ko war a waajal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ma bañul woon lu diis ci xeer bi dinaa leen digal ñu ci gépp julli gu ñuy julli kon loolu itam da ngay dégg ne kon nit ki war naa yitte woo bu baax a baax a baax a baax itam setu gimiñam buy dem ci jàkka ñaareel ba buy dem ci jàkka itam mu dox dox bu dal dox bu fullawu dox bu wegu loola nag la la koy may mooy nga jóg ca temps ba nga war a jóg waaye bul ba dégg ñuy la xam rek nga doog a jóg di daw wala ngay waaxu waaye na nga am loo sédd ca waxtu wa lo xam ne sa egg ca jàkka ja ànd akuk dal ànd ak sago dana fa xaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ngeen déggee liqaam na ngeen dox jëm ci julli ga ànd akuk dal ànd akuk wegeel bu leen gaaw lu ngeen ca fekk ngeen julli lu leen ca faat nag ngeen mottali waaye fat googu nag jullit bi da koo war di ken kenn kattanam eh, ngegte rek moo ko war di yóbbee ñetteel ba su yeggee ca jàkka ja bay dugg na jiital tànku ndeyjooram su demee bay génn itam na jiital tànku càmmoñam maanaam ndeyjoor bi na jiitu ci jàkka ji na ci mujj a génn nañ ci anas radiyallahu anhu mu ne bokk na ci sunna soo dee dugg jàkka nga tàmbalee jiital sa tànku ndeyjoor boo dee génn nga jiital sa tànku càmmoñ mën a tànku ndeyjoor ba mujj a génn ñeenteel ba itam booy dugg nga ñaan booy génn nga ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kenn ci yeen su dee dugg ci jàkka na wax ne allahumma aftah li abwaaba rahmatik yalla yalla nga ma ubbil sa bunt yërmande yi bu dee génn na wax ne allahumma inni as'aluka min fadlik yàlla maa ngi lay ñaan ci sa mbaax ci sa ngëneel bu duggee ca jàkka ja itam na dem ba fa sàppe ya yam bu fekkee sàppe bu njëkk ba feesagul na ca dem bu feesee ba ca topp ba ca topp waaye bu gis sàppe bu ne ci kanam bu mën a taxaw ba noppi di taxaw ca ba ko féete gannaaw ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na bu nit ñi xamoon li nekk ci nodd ci ngëneel ak li nekk ci sàppe bu jëkk te nee na amuñ ca pexe lu muy dañ koy tegoo bant kenn du ko bàyyee sa moroom dañ koy tegoo bant ku sa bant génn rek nga taxaw ci juróom benneel ba su fekkente ne dugg na ca jàkka ja itam te julleeguñu bu mu toog lu dul dafa julli ñaari rakk yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn ci yéen bu duggee jàkka bu mu toog lu dul mu julli ñaari rakk juróom-ñaareel ba itam suñu kàbbaree bay julli na rafetal ni muy toppe imaam imaam doo ko jiitu doo defandoog moom da koy topp da koy topp loolu nag ay njuumte la yu bari yoo xam ne ñu bari ci jullikat ñi dañ ciy tàbbi dañuy mel ne kuy njëkkanteeg ilimaan dañuy rukkoo léeg-léeg jiitu ko wala ñuy siggi ca rukkoo ba lu jiitu ilimaan wala ñuy sujjóot lu ko jiitu wala ñuy siggi ca sujjóot ba lu jiitu ilimaan wala ñu koy defandoog moom te yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne dañ koo def ngir ñu roy ko su rukkoo rukkoo leen su sujjóotee sujjóo leen su siggee siggi leen kon dañ koy topp kon ilimaan doo xool sa bët waaye nopp bi ngay déglu rek loo gis muy def ko te waxagul allahu akbar allahu akbar ji moo lay déplacé moo lay jëlee ca la nga nekkoon yóbbu la ca la imaam nekk boo séenee mu jëm ca rukoo ba di sëgg te waxagul allahu akbar taxawal rek bu téyee ci moom ba ne allahu akbar nga doog ko fa fekk waaye bul yor sa bët lu muy def rek nga gaaw jiitu ko ca loola juróom-ñetteel ba wattandiku nag di amal ci jàkka ji loo xam ne luy dagg soxlawoo gi nit ñi soxlawoo seenu jaamu yàlla la ndax borom moo ne fala tad'u ma allahi loolu kon ci ngay yëgaale lu mel ne ay portable yeeg yooyu nit ñi di ko wattandiku ku ko mën a bañ a yóbbaale sax moo gën ndax itam nag war ngaa jël ci sa bopp waxtu woo xam ne nag da koy sédd sa bopp sédd ko sa digganteeg sa boroom waaye jamono bu nekk rek loo nekk nit ñi ñoo la ca ba am nga disponibilité ku la soxla jot la ba ci biir jàkka ah loolu nag bu boobaa moom sa waxtu lépp joxe nga ko loolu kon lu mat a bàyyi xel la jàkka yu bari dañ ciy bind di fàttali nit ñi ñu war a fay ay portable wala ñu bañ koo def muy wuyu loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ndax saa bu sonee rek dagg na concentration bi nit ñi defoon ak teewal gi ñu doon def rawatina bu dee ci biir julli def nga lu rëy loo xam ne mënatoo ko dabaatal juróom ñeenteel ba na watandiku di yëkkati kàddoom ak la muy def nag lu mu am am solo moo xam day jàng alquran moo xam day tudd yàlla bu mu ci yëkkati kàddoom ndax di soxlaal ñeneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na leextikaaf ci jàkka ji mu dégg ñi ne ci biir jàkka ji di jàng njàng mu xumb mu yëkkati rido bi ne leen kenn ku nekk ci yéen day diyeyaaleeg boroomam bu kenn ci yéen lor ka ca des bu kenn yëkkati kàddoom am njàngam ci kaw njàngum ña ca des ba ñu mën a dégg la ñuy def kon jàkka ji boo ci nekkee da ngay jàpp ne yow rek dangay séddaale nit ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ci barab bi te loola itam nag sax moo gën a ànd ak sellal ci di ko yëkkati ñëpp di la geestoog di la xool fukkeel ba ci li nga xam ne day tegtalee ay teggin yoo xam ne war nañ koo am ci jàkka ab jullit bu jigéen bu fekkee ma ngay dem ca jàkka ja na sàmmoonteeg teggin yi nga xam ne mooy teggini sharia yi nga xam ne moom la digal jigéen ci ak colam na sol col gi jullit bu jigéen war a sol te itam na wattandikoo laal ak xeet goo xam ne buy xeeñ la wala na wattandikoo def yenn xeeti toilette yenn xeeti tartar la na wattandiku itam di jaxasoo góor ña waaye bu julli ga jeexee itam na gaaw a wëlbatiku na gaaw a dellu lu jiitu góor ña ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu baaxee nu defal nu xéewal ci ñu topp ko ci lépp lu nu may ngërëmam ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee ay wax dañuy topp la ci gën a rafet te la rafet ci ay wax mooy la dëppoog alquran ak sunna loolu mooy nattukaayu wax ju rafet allahu nazzala ahsana alxadis ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala sellal ci wax ak jëf ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu musal nu ci lépp loo xam ne njuumte la rëcc-rëcc la ci lu ñuy wax ak lu ñuy jëf ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq nu gindiku tënku ci njubug yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين